bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahi alil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci seydina Muhammad di ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu def ñu dégg-dégg jullit waaye ñaan borom subhaanahu wa taala mu jéggal ñu suñu bàkkaar di ñaan borom subhaanahu wa taala mu defoon ñu jàmm am na jàmm alaaxira waaye ñu julli ci xaritam boobu suñu sopp boobu suñu sang boobu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala yàlla ñu yàlla boole jëmatu Mawlana Cheikh Tijani waaye bu muy oman jëw ñu ko Cheikh yàlla nekk bu mu suñu moom Cheikh Sidi Hadj Malick di leen nuyu di leen ziyaara di leen baal xaq di leen baal di ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal wa tabarakallahu di jiital ci nuyoo bi nag alxalif quran tabarakallahu sëriñ Babacar Si Mansour ataala amruhu wa ayyadahu nasara di ko ñaanal yal na di guddal fanam yal na yàlla doon di sàmm ko yal na ko yal na yàlla doon ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy ñëw xalifa général des mourides sëriñ Mountakha Mbacké di ko ñaanal moom it yal na yàlla yàlla war ko wattu bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñuy nuyoo Cheikh Begaay Begaay Kunta xalifa général bu leen xalifa yaa si Ndiassane nuyu mboolem xalifa ci ko suuf dem ba Thiénaba jóge Thiénaba dem ba Léona jóge Léona dem ba Medina Baye jóge Medina Baye dem ba fi nga xam ne fa tabarakallahu mooy waa Daaka jóge ba Daaka dem ba fi nga xam ne mooy Yoff nuyu mboolem xalifa ci ko suuf di leen ziar di leen ñu ne tabarakallahu président de la République du Sénégal ak mbooleem ñu ne ci gouvernement bi ak mbooleem ñu nekkoon ci opposant bi rawatina ummatu Sénégal yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn tabarakallahu di leen suwaat rek di leen ñuy leen fàttali fàttaliwaat suñu bopp tabarakallahu coow yi bare na coow yi bare ci ñenn ñi ci wax ji tabarakallahu mu nekk réew mi réewu jullit la comme ni ñu koy waxee waaye nag tabarakallahu nafiq yi dañ fi mu mel ni comme tabarakallahu bu nekkee ci lu yoon danga ko war a woo ni ko ni nga nekkee du yoon waaye waroo ko cee poussé di Seydina Muhammad waxoon ni bu tooñee na nga ko jàppale buñ ko tooñee na nga ko jàppale ñu ne yaa Rasulullah ki ñu doon xam ne nañ koy jàppale waaye ki toon nga woo bu mu ñëw nga wax ko dëgg kon tabarakallahu di ñaan Oustaz Makhtar Sarr ak mboolem ñoo xam ne ñoo nekk ci sàmm jikko yi yàlla yàlla gën a dëgëral yéen yàlla doon di sàmm leen Muhammad sallallahu sallam cooy leen bëri na ci nag ma tabaraka Allah te xam naa ne ànd sàmm ci kuy Matar Sarr gisuma ci ñoom lenn war a mën bañee ki nga xam ne moom mooy Wally gisuma lenn lu ñu war a mën a soxaree gisuma ko ndax tabaraka Allah mu ci wàllu diine la ñuy dox moom muy dox ci wàllu leneen kon nag bokkuñu waaye nag nit bu bëggee ne ci kaw suuf. yàlla waxoon ni Seydina Mouhamed yaa nekk sama représentant ci kaw suuf waaye Seydina Mouhamed jóge fi borom xam-xam yi war ko représenté ci kaw suuf bokk ko bokk na ak jikko ju rafet nag kon ñu ngi gisee li nga xam ne war a yàq société bi am nañ droit kat ñu taxaw ñu ne aay ah, te yaakaar nañu ci logique boobu lañ nekk ku bëgg nag Sénégal nag dafa bari parparloo yaa ma neex rek moo fi nekk waaw yaa ma neex yaa ma saf waaye nag dëgg moom dootuñu ko waxti ku la neex nga solante ku la naqari nga yaa ngi koy wax dëgg mu mel ni comme tabaraka ak mbooleem mu mel ni ñoom oustaz oustaz ku ci mel ni oustaz tabaraka allah ku ci mel ni oustaz oustaz boo ku ne seen TV bi waaw ndax dégg nga ko wax beneen Mouhamed ku ci mel ni oustaz Ndiaga Seck wa tabaraka allah ñooñu ñëpp wa tabaraka xam nañ ne diine rek leen ñor iza raa minkum munkar falyughayyirhu bi yadihi aw bi aw bi qalbihi wa zalika ad'aful iimaan ku ci mel ni Dame Mbodj tabaarakallaahu dëgg yàlla dañ koy ñaanal moom bokk na ci ñi xam valeur bokk na ci ñi nga xam ne tabaarakallaahu ñoo ngi sàmm suñu jikkoy doom waaye ñoo ngi sàmm suñu jikkoy sët tabaarakallaahu yàlla yàlla gën a guddal leen fan am na nag am ñenn ustaas yoo xam moom tabaarakallaahu lu yàlla xam doy na nit du nekk naa feex waaye tabaarakallaahu boo demee bay toog laa nañu waxtaan lan la ñuy waxtaan lan la ñuy xam nga waxtaan mooy ñaar luy jiyoo ci ay wax mais kay nekk ci lu bonam kay kii kii di ko logique nga ne nañu waxtaan nañu waxtaan ndax fi télé bi nga nekk tax ndax jàpp ne boo waxee boo waxee lu war doon ñu jëlee la dafa toll yaa ngi naan kenn naan kenn ne ginaar kenn nanu ma kenn boo ma kenn yëngu la dëgg dëgg alaku ñu la wala yola alayka dëgg moo jiitu dëgg moo mujj kon nit ki bi ngay ñemee dëgg bu dugg biir bàmmeel waaye jël sa aaya ak sa hadis yi nu mu la arrangé rek nga firee ko noonu téwéyoo ko noonu lu yaakaar yaa ngi nax nit ñi fekk yaa ngi nax sa bopp kon yal na yàlla gën a guddal seen bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu rek di ñaan yàlla rek Sénégal yal na fi jàmm ñun nag Sénégal dañoo bëgg lu bon bëgg lu bon du ñu déglu ñu baax ñi du ñu seetaan ñu baax ñi boo xoolee lan la ñuy déglu ñuy saagaate di xasee ka jël suñuy kër yi jël suñuy xaalis di ko yàq ci ñoom naan dañuy dem ci Instagram bi di leen seetaan au lieu yëpp ñu déglu lu ñuy jëriñ mais lu ñu déglu mukk lu ñuy jëriñ lu ñuy delloo ginnaaw rek la ñuy déglu fii ku fi ku fi am bës rek Sénégal yi ñoo la may bës te loolu ci taxaw ñu ban rek lan lay may bës xoolal ñeneen ba xam ndax plateau sénégalais yi ndax journaliste yi léegi ay journaliste am ñu léegi ndax ñun ay journaliste ñoo ne ci télé bi wala ay rajo ñoo ne ci télé bi soo xoolee ndax ñi ciy wax ñoom ñoo a xoolal léegi ñu ngi invité ci télé yi ku mënta woo wax ju bon mu ne xoolal ku mel ni ay bu ma si tudd seen tudd leen may bës ñenn nañ ay Pawlish ak Ouzin Keita ak ay ay ay ay ay ay diini problème ak ñooñu lan la ñu mën a apporter Sénégalais fan la ñu mën a jëlee Sénégalais ak fan la ñu mën a yóbbu ba leen di song ci plateau yi ba ñu si réseaux sociaux yi ñoo fa nekk plateau télé yi ñoom la ñuy invité ñuy saagante di xasante ñuy reetaan ak di leen loolu pour lan la ñun dafa mel ni journaliste daal dafa mel ni léegi saxatu parce que léegi boo xoolee léegi animateurs yi ci télé yi. jéemalatuñu gis nga tere boo nee ba ci toog bay wax waxal lu mën a jëriñ société waxal lu mën a jëriñ doomu aadama yi waaye tam ci tere yi di saagante ak xasante nit ñi di reetaan ñooñu lan la ñu mën a apporter fii Sénégal ban xam-xam la ñu am loo war nañ ko mën a jëriñ Sénégal lu dul delloo Sénégal ginnaaw wa tabarakallaahu yàlla yàlla jàmm war nañu xoolaat comportement tere yi war nañu xoolaat ñi ñuy invité télé yi war nañu xoolaat ñuy dëj ci kanamu télé yi télé yi war nañu xoolaat ñi nga xam ne dañuy télé du ku ne moo ci war a toog du ku ne moo ci war a wax léegi nag léegi-léegi sabab parce que léegi na sabab bi ñaaw nga mën a wax ju bon nit ñi mën a reetal kene jóge fële ni man mën naa xar déegi xaw ko kaane xaw mu mànde même boo ko mënul sax fatawaak la xam ne yoo xam ni jaarul di wane ndax inna al-fadla bi yadi llahi yu'tihi man yasha'u wallahu zul fadli al-azim loolu télé ne dama ko télé bu nekk télé waaye nit ñi wër la jàppul fii jàppal fa wax ji fii jëm fii wax ji jëm fa pour lan la kon ne war nañu xoolaat suñuy comportement war nañu xoolaat suñuy doxalin war nañu xoolaat suñuy waxalin xool la xam ne mooy jëmale société bi kanam fa tabaarakallaahu ñu jëmale ci kanam ndax loolu rek mooy li ñuy jëriñ mu mel ne fa tabaarakallaahu nag ñoo ngi dem ci weeru tabaski di di sunnatul mu akkat du farata nag mu war a leer ñu bari nag ku julliwul wóoru ko loolee tabaski ku julliwul wóoru loolee tabaski ah tabaski du farata sunnatul muakkad la du farata waaw kon nit ki boo bàyyi farata sonn ngay sonn di sunna waaye ñun Sénégal dañuy bàyyi di topp sunna ak ngëneel tabaski du farata soo ko mënee soo ko mënul mënul ko ma seet dama xam ne ren ngaa xarit ni bii pour man la waaye bii yóbbaale naa sama xel yëpp kon fa tabaarakallaahu yàlla bi jaayi seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal li ñu koy xamee boo amee xar bi na am at juróom na foox bu mu patt bu mu laajte bi bu nga xaajee ñetti xaaj boo mën benn xaaj bu génn bi xeeñ bu mu feebar na bëri leer yooyu daal lañ ci fa tabaraka allahu yàlla ci yàlla nag bi jaay seydina muhammad mu mel fa tabaraka allahu liñ ñu cëri la woon ci mat na ñaan yàlla borom subhanahu wa taala ñu dégg-dégg jullit xëy ñu ci boppam ba ñu xëy ci leneen waaw waaw di wax nag missions yi bari nañ fi kon waa di balaago nee nga ku la wax ci borom ñaar tur yi nga yóbbu ko police waaye nag ci war ngaa xoolal sa comportement waxuñu nag moom na waaye war ngaa xoolal sa comportement say bàyyi jaar nañ fi kenn si la jox sa bàyyi ko coono fi jógee léegi yàggul yàlla yàlla doon di ko yërmande Assane Ndiaye jaar na fi dégg ko moom xëy na Seck jaar na fi dégg nga kenn dàqul mooy Sénégal yëpp dinañu dégg kenn mosu leen koo jox nit nag buñ lay jiñ ñi buñ lay jiñ dem ñu fekk la nga yor réew mi di ko wàccoo boobu yaa ngi bëgg a téye xel yu gaañ yow la du yow arrière wala sa comportement xam ne jeunesse bi am na ñu la bëgg waaw am na ñu la bëgg am na ñu lay xool am ñoo xam ci wàllu ñu référé wu ko nag nit koo xam ne boo defee fukk def kooku war ngaa xoolaat nga def boo solo fukk sol war ngaa xoolaat nga ngay dafa war a nekk exemple ci xale yi waaye war a nekk koo xam ne ëllëg dañ lay gaañ te at mi lépp mën a am fi nga koy bàyyi parce que démb njaay bi sa bàyyi jógee nga jooy jooy ñëpp li nga fi yóbbu da la fi bàyyi kon xoolal sa comportement moo gën ay parantaay ay ko waxat nit ay ko wax laa nit nag ku baax moo mënul ñàkk ñu naan yenn yi waaye bu lay waxal yenn yi rek fexe bu la ci seet kon yàlla yàlla doon sutura yàlla yàlla jàmm yaay seen na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla oustaz nag seen saa seen tey jii moom kenn waxu ci xaw ma lu war a lool nag waaw ah, xaw ma dañu ragal xaw ma dañu dañ ci dañ ci amul xam-xam wa tabarakallahu yàlla yàlla jàmm bi jaay seen na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh